pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass ñas lu ma la yow loolu bul sonn. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. tu aw ma problème man bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa leen faket bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr. bien suur dañ koy jël dama koy jël. nag day après day dëgër ni koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu yëpp hmm? fii day sedd day sedd guy ba pare duma taal benn kilo xalaatuma ko sax. lu leer laa loo séeréer na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg nga. waaw mu ngi noonu te lii xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ni ay waxu neen la rek comprend nga Mhm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la gàddu corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën mhm. xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa su bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp mm-hmm. te mën nañ ko du dëgg mm-hmm. ah, loolay dëgg léegi nu ñuy def ba dem ci pas boobu ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus ah, ah. au cas où ma war a jël déjà waaw d'accord léegi man danaa xool oote su ma ootee Euh, mhm. xool ko ban jour la ñu mën a recevoir ñu def ci gannaaw saalum la dégg nga parce que faut ma dem quand même waaw mm, li tuuti ci décision yi ma war a jël parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement ah, parce que parce que ils n'ont pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax waaw ñoom ma waxee enrangé wu leen seen góor dafay daanu bu baax ils n'ont pas été morts. waaw lo loolu man. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur